sàccub xale bi ci réew mi daal di lëmbee bopp nit yi waaye naga bi daf cee rawati muy euh, bébé Aïda Diagne di doomi Zale Makeup ba ne fële ca marché Zinc moom nag ni ki jamono ji paase rek la gis ni dañoo daal di euh, sàcc doomam waaye sàcc ma ala ca daal di euh, gën a doy waar rek moo di ne ka nga xamante ni dafa jël gone ga dafa mel ni rek koo xamante ni bi ku xam Zale bu baax la waaye it ku gone ga la ndax ma ko fopp mel ni ku gàddu doomam di woy moom rek di dem boobaak léegi nag ñu ngi def rek ab enquête ngir gis ndaw si lee ndaw si nag jafewul xàmmee benn yoon ndax bu ñu xoolee ci biir caméra yi nga xam ni mu ngi daw waaye rawatina bii ngeen xam ni moom ngeen koy gisee mu ngi sol rek benn robe bu longue manche daal di muuro benn col bu zone moom moomee nag boobaak léegi rek moom la ñuy jéem a identifier ñuy ñaan képp koo xamante ni bi a gis nga ko rek ba xàmmee ko bu baax a baax nga daal di koy signaler ndaxte mbir mi fi mu ne nii Nobopou sénégalais. thank you